<laughs> di ngeen ne damaa bëgg Pawlish mais non non problème mooy Pawlish mooy actualité. c'est normal nga bëgg ma Mbaye. non non ku baax ku ne damay bëgg. ku bëgg nga yëngatu damay bëgg ku bëgg nga xew damay bëgg mais Mbaye si normal nga boobu parce que damaa nekk xale à trois millions c'est pas en plus day dem effet ah. non non c'est que xam nga lan la. parce que da ngay am da actualité su amee moo tax da ngay ñëw que seet si nga ku xew ku réew. waaw ku a seet si sa yoon da nga da nga da nga da nga boo xamante ne euh, mi ngi commencé toj dëkk bi te def nga clip yëpp di classe yow lu sa yoon si imbécile, euh, bordel su mu see seytaane naa fekk ma ci dugal tu leneen bordel su mu see tachon bordel énervé nerveux moo tugal ak reewane ak bañ a xeew ma ci dugal kese mbay du leneen waaw loolu dama ko gis ñu ne ma Pawlish lan moo tax mu bañ a xeewi mbay xeewi li taxu xeewi métti boo xeewee sa gémmiñ day xasaw kañ waxtaan di tuuti kat hmm. da laal sensible ci nit ci nit ku xew mm-hmm. te ñàkk moo gën a bi rek xew yi te ñàkk mm-hmm. mbay soo gisee ma bañ xew yi mooy lan mbay boo xewee mm-hmm. te ñàkk kenn du la yëgal lu neex ci àdd lu neex moom noppi nga koo dégg ci àddina doo lu neex doo lekk lu neex doo tëdd fu neex doo sangu lu neex doo daanu fu neex doo wax ju neex lenn fu neex doo ko am ci àddina waaw c'est normal parce que alal ak xew ak alal lépp la lay ubbi Mm-hmm. lépp la lay ubbil da lay loo xeetu luy xeetu neex da la koy ubbil ci àddina boo mm-hmm. tax am neex am te xew boo neex mm-hmm. loolu gën a neex ci àddina mbay soo ko jee may hésité ci bañ a damaa xam li ci xew yi mbay mbay boo xewee du lay lenn lu neex ci àddina sa gémmiñ day xasaw déjà benn parce que nag boo ñàkkee te xew yi loo doo am xaalis en fait kenn du la bëgg du lay gën lu neex mbay yal na ci Yàlla musal ci xew yi uh-huh. mais mais euh, bëri na euh, euh, rab lan moo la dugal ci kii classe. bañ a xew déggoo mbay man ni bañ a xewi mbay te maa ngi ñëw ci xewi mbay. waaw barki rasulullah mbay boo xewee du la gën génte mm-hmm. du la yëgal sorti mm-hmm. du la yëgal sangu piscine. Mm-hmm. du la yëgal corridor. du du la yëgal tuur. tuuru famille du la ko yëgal natt du la ko yëgal boo xewee mbay barki Seyduna Muhammad te li la bu la yëgal lu naqari lan la yëgal lu ci mel ne dëj <laughs> accident ah. jongu ah. bëy loxo bu tëccu arbis ndoxum siti ŋas rek lan la yëgal ci àddina barki rasulullah xewi xaaral ma mbay da ngay nepp wala ma ñuus la ah. ok d' accord mu noo a wax lépp da ngay la dëj ni la ko yëgalee mooy metti alors Ousmane ça Pape de gaañu na kañ la gaañu nga ni gaañu na dem ci guddi la karaj lool la ko yëgalee wala ñu ne la oh, tey de alo Khadija accidenté na kaw la accidenté ñu ci yoonu ci yoonu ju kii mbuur bi ne la karaj Pape Pape daa béy ci loxo lu bay béy xawma lu ko béy daal ñu naan dafa tëcc ne la karaj mais xoolal boo amee xay bu la yëgal de ñu la ko yëgalee par rapport ak boo ñàkkee léegi de allo Ousmane Xadija gaañu na dem ci guddi lu ko gaañ billaay feebar rek ak seytaane moo ko gaañ kañ la gaañu li yow fa la gaañoo roi Badou yooyu kañ la gaañoo billaay wallaay wala Danteel la gaañoo foofu la Cees wala ñu ne Ousmane ci ngénte li di nga ñëw da nga teel a ñëw la nañ la sa laax kañ ngay añ ci da lay laax bi da koy bàyyi boo ñëwoon da nga koy téye ba suba ci guddi. duñ ko lekk ndax dañuy xaar boo ñëwee doon xaay moo tax billaay ñàkk te xew te ñàkk gën a metti wala nga ñàkk ko amoon ba ñàkk moo metti yenn ci yàlla mosul moo tax mbay may bay xew mbay bu lay gël dëju xew a ñu lay yëgal dëj ñu la ko waxee moo metti alors boobu yow kii Ousmane de gaañu ci duul fak te gaañu la ka rek lu gën a metti loolu mbay ay mbay yal na yàlla mbay mbay sama oto aca clip bi lan moo sa yoonu ngaaka. saytaane naa fekk fumiste bañ a xew yi bëgg a bokkaat ci game bi loolu rek moo tax may dugg ci mbay du leneen. loo ko ñu ñu ñu man affaire bi attan ma ko ba déglu tuuti. déglu ko eh, eh, ma déglu tuuti. ku ku mu daw seeram na wala ku la neex nga saytaane nga parce que xam naa li may may neexul. léegi yow koo faral si si si affaire bi. bañ daal bañ a daal lay faral. saaga baa yi day def effet wax sa neen day def effet Pawlish Mbaye yi day def effet génnal ci gem bi Bril génnal ci gem bi Bril génnal ci gem bi sinon dama lay ñëw sinon dama lay ñëw dama lay ñëw dama lay ñëw yéen ñëpp ñu ne ay ñëw baa ngeen ñëw baa ngeen ñëw yéen ñëpp ñu ne ay ñëw baa ngeen ñëw Bril génnal ci gem bi Bril génnal ci gem bi mi ngi ñaaw de ba noppi dafay gën a ñaaw muus leen réglé balaa ba nit bi ñëw muus leen réglé balaa ba nit bi ñëw mais eh, ngaaka baaleel boobu eh, lan moo tax nga xaw a faral ngaaka bi. su dee ne ngaaka bu la tooñee ngaaka baale ba pare ne ko a ko lu soyoon ci carte grise jàmbur. lu mhm. mhm. dinaa la ñuus. ba mhm. ma waxatee. lii laa wax. léegi saaga ñuy saaga ay ay kii awra jàmbur ñuy parce que xam ah, àdduna moo toll foo xam dëkk boo xam léegi la. ku bëggee xew da ngay saaga. lu ñaaw wala nga def lu ñaaw wala nga waxi dof loolu ki soo jàkkaarloo alxuraan kenn déggatu leen <laughs> mbay maa bëggoon nga woote diine fii waaye ndax def ci ay millions ay millions yi millions war a paas dépasse soixante millions kii woote Zaire dépasse téeméer paas <laughs> paas cent mille francs ñu ñu jox alxuraan paas téeméer barke yonent bi paas paas cent mille mooy ëpp parce nit ñi léegi ñoo bëgg ne nit ñi ñoo bëgg affaire affaire kaf te mbay mbay ñuy fàttali mbay gékk mbay xool jàkkatu ko ci mbedd yi jàkkatu kaamil ah. su may rombee mën naa romb kaamil bi vingt ans kaamil boobu laa fay fekkaat du jënd moo tax dama naan dimbal leen ma ngi tënk ñoom suñu laaj des fois sax damay romb neen am leen ngeen téye dara xam duñ jarle mosoo gis néegu néegu xale ba mu kaamil da nga ko gisati hmm. te paa yu njëkk yooyu ñoo am suñu paa yu léegi sax si ni ngi amatul kaamil parce que du talatuñ kaamil léegi topp nañ soo biis bi topp nañ soo biis bi topp nañ soo biis bi topp nañ ci sopp xoola ñun ñun ñun ñun paa ñu waroon dimbali hmm. boo gisee paa yi ñi paa yaay ci TikTok bi di ay live hmm. ah oh, waaw waaw surtout sëriñ si. sëriñ si ñoom waaw sëriñ si dem laaj sëriñ si ñoom boo amul chance si dañuy doxaane. sëriñ si ah, mais keroog dugg nga bu subu Mara Niass bi xaw ma kan. non mais man tudd ma kenn. waaw man dama laa ne sëriñ si. waaw sëriñ si léegi ci laay fi dañuy doxaane. sëriñ si. billahi wallahi uh-huh. duggal seen Instagram. Uh-huh. noonu la ñuy kafee di doxal sëriñ si sëriñ du kaf. Uh-huh. ñoom 3 heures du matin la ñuy live te bon heure bu ñu waroon live ñu waroon war bu ñu ay sëriñ lañ. lii ay sëriñ du tee seen xurus di def duruj mbay danga may dóolu affaire sëriñ dafa sori sax mbay li dégg naa nag yaa leen di encaissé di leen gën a encouragé ku mel ne Cheikh produit dégg naa ah, encaissé ko ko quatre cent mille xam nga ne ko di nga di nga di nga ko publicité publicité woo xam nga mbay xam nga mbay man mënu maa naa fekk te dama fenn ku ma fay saxaar publicité la xam naa ne mënoo mais damay defal publicité ah hmm, xam naa ne mënoo dara waaye ba mu fayee damay def kon kon Cheikh mënul moo tax sama yoon nekkul ci moom ah. ay tur tur fàtte woon naa sax loolu xaw ma xaw ma lu muy liggéey de moom lu muy liggéey day jaay ay produits nee na da nga koo fay 400000. waaw ah. xam ne da koo daw daw da koo daw defoo publicité bi. loolu lu muy yokk produit yooyu. non ay awra. awra yaa ngi nii xayma moom sa awra sa xool sa awra bi nu mu toll awra bàyyi mel ne ki ma non non non non dama dégg. boo boo écho bi man ko boo aayee. Mhm. boo aayee doo boo aayee dëgg dëggantaan njaay. Mhm. boo aayee dëggantaan soo waxee coono nga xam ne kii day wax ci Pawlish kii mhm. wax naa ci moom man nit ku aay damay damay focus ci yow te nag ku boo xamee dara ak loo mënti doon loo bor ay milliards ba ma fayee nit woowee ne ma kii aay la dama naan boo aayul naa la aayul xamul dara mais yéen Sénégal yi ma dimbal leen ma ñu publicité damay liggéey tàngis bu munin hmm. tàngis bu munin ah. daara fakki ma mais la moo tax defoo ko waaw parce que nit ki moo def naa ko sax mais xam naa dafa amul ay client xam naa aayul man ku aay ku aay moom mu yàlla suturaal la man liggéey laa fi nekkee sàcc ba kenn sàcc mbay yaay yaay tudd turam kon nga yokkule yaay nii sa bos baa ngi ne ma dégg ngeen. waaw léegi direct yi nga ni sëriñ si. sëriñ si def direct yi laa bëgg a waxal. ndax sëriñ du caaxaan. sëriñ du kaf jàpp ne léegi ku jug di sëriñ des fois nga gis sa xale bi too tey nekk sëriñ sëriñ des nga gis téyeer kuy ñëw nekk téye nekk sëriñ des nga gis euh, téyeerkat bu bàyyi ba nekk. ba romb tee nekk sëriñ te seriñ sëriñ du loolu sëriñ suñu borom moo koy sol doomu adama sëriñ du ay yére bu rafet du portal bu rafet du kër gu rafet sëriñ suñu borom moo koy def doomu aadama bu la ko ñaanal ne mu nangu mais sëriñ si guddi trois heures ma matin la ñuy bañ bu xale tëddee ñu ngi doxaan ci tiktok yi normal normal te ñoom léegi dina ubbi seen label ubbi seen groupe yéen billaay wallaay bu ñu nee ba sëriñ ubbi seen label labelu sëriñ nga xam ne dëkk baa tas dëkk baa ngi tas tas tas tas te bala maa dekk koo ci naa naan la sawa na nga def te ñoo gën a saay-saay bëy ñoo gën a nit rek lañ ba kenn lañ yor waaye seeni xeetu saay-saay moo ëpp xoj te xamuñu dara dara dara dara man ku aay nga jox ma sa xaalis wala publicité léegi balaa suba ku ma laaj ci suba dama naan aay na mm. barke am mm. soxoruma billaahi wallaahi laa ku aay boo ne ma aay nga man la aay nag ma suuf sama ndek soon bàyyi barke alxuraan ko du tiri mbay man du ma tricher ah, parce que ñu fay la seen xaalis nga war leen defaral man ku ma fay ma ah. waaw xam nga ku ma fay di nga gis ku ma ku ku naan Pawlish man laaj la kii bu aay dama la aay na jox ko taxaalis. Hmm. aay dama la publicité rek waa Cheikh moom xaw ma kii daal moom dara. Ah, soo joxee sax jaaxam. kon gars yi noonu nga leen defal. mu noonu sérieusement ma fayee publicité ma publicité la mais boo aayee moo bu ñu aayoo rey na hmm. ñoom bi yàgg. temps yii moom la yaa ngi yàq sëriñ yi mais temps yii moom langal ko ko sëriñ sëriñ laa la. ah di gis maa ngi gis kii ma defal direct dafa aay Euh, dafa benn sëriñ. Ah. boo xam ne dafa ay bu dëkk ci ginnaaw faar ah. yàlla may ko yàlla may ko baatin du ma ah. yàlla may ko daraja. faal ku ay la. ci dëkk ci faar ci ginnaaw faar ko ko jemul ko ragalul pour jël alal jaam wala pour jël xaalis jaam sëriñ Rokhaya sëñ soxna Rokhaya Dramé mooy soxnaam Rokhaya Dramé moo gën a ay jëkkër ji Rokhaya Dramé moo gën a foor jëkkër ji li nekk ci jëkkër ji yi moom ndax aay dama lay mbay barke alxuraanu karim soxna Rokhaya Dramé ku ay la mhm. bil ak ma suul sama bokk si ñi def direct du ñu dóor heure boobu tëdd na ñëw heure bi ñu def direct ñu ngi def seen i di liggéey nekkul ci ay caaxaan barke alxuraan ko. kon daal ñuy wallaay sëriñ si yëpp suñu meloon ni moom kon sëriñ am solo. Hmm. dañuy dimbalaatee bëgguñu alal. bu hmm. na nekk alal jënd nañ kër yëpp parce que li li ñu wut li ñuy wut ci ay audience ay audience boo ko duggee bu ñu toog ay audience yu te li muy seetee bëriwul li muy ñaanloo bëriwul. Hmm. te moo moo gën a aay ci awra. moo gën a aay ko amul doom. moo gën a ay ku bëgg falo moo gën a ay ku bëgg a visa moo gën a ay ci ku amul dara mu billaay wallaay sono rokoy dramé ak ba suur sama nday sama baay cawur sëriñ bu aay ñoo ñëw aay mm-hmm. du fenn ma la nëpp ma la dama def dëggantaan ko gën a aay mm-hmm. te mu jëkkëram ca liggéey même liggéey dañuy liggéey ñu ñaar bu la sotee jàpp ne sa lépp tàq na trition moo fen mm-hmm. mais ñeneen ni ku ma ni aay na ah, nga neexal ma waaye seen aay ba de Mm-hmm. kon daal TikTok bi daal soo soññee ñu arrêté ko ñoom. fa dinañ ko arrêté par force. Mm-hmm. kooku ku ko ni aadama xeexee góor jigéen ñi. Mm-hmm. ba am ci ndam. noonu laay xeexee sëriñ si ba ñu bàyyi TikTok yi sëriñ yu aay nga laa ku aayut bul mer ku aay bu la neexee defal sa TikTok defal lu neex xam dama xam aay nga ku aayul ku aayul am nga problème billaay sëriñ du bëri kaf sëriñ du nekk ci ay détails sëriñ du nekk ci ay détails damay wax nag waxuma pour offenser kenn waxuma pour défenser kenn damay wax pour dimbali sénégalais yi ñu ñu yeewu ñu nekk biir Europe ñu yeewu sëriñ si léegi boo la joxee seen xaalis bu guddi jotee ñu dem foog dem baali lekk seen i yàpp hmm. tëdd jël seen appartement wut xale nekk seen jàmm yéen ñi nekk Europe di yónnee sax xool la ñu ngeen yónnee seen naa ne nguur gi ñi ngi mënuñu ci dara nguur gee gi def seen liggéey mënu ci dara ndax fu ñuy yolle ko di nax seen i naq des fois nga gis sëriñ mu nax alalu jàmm nax yoo xam ne saa doy tukki des fois ñu réwine la réwine la ba yow doo mën a ñëpp ci da ngay suur Sénégal ñu ne la sa kër jaxasee la ak sa njaboot tas sa fami yàq sa àddina naan kii moo la liggéey tey ñoom mënu xam ne sax nu ñuy liggéey kii moo la sànni kort te xamuñu sànni kort man moom ngir jëm rasul sëriñu ASC laay di waxam sëriñu ASC dimbali leen ngeen ñaanal ñi nekk bitim réew ak ñi nekk Sénégal ñi aayal ñu ngir jëm rasul laay génn leen ci abiru sëriñ sëriñ du caaxaan ku li naw si sayxati mati ku li sayxati mati dee am na de mbay dee am na de mbay boo deewee nga xam ne sunu bu malaaka yi ñëw nee na jibril kii nu sa omar bu xaraam ne la teel nee na maa xasa nga naan ko direct live laa nekkoon Instagram TikTok mu naan la sëriñ nga war nga ne ko non non dama doon gën a métti saay sa ay carton saa sa nopp ay carton takk sa tànk ay carton dina ñuu ay yat naan la hey maanaam bu nga naan ko tiktok laa nekkoon Instagram Twitter lu gën a bon sëriñ dëgg maa rab nga ne maa rab bon maa rab ko ni eh, ay sunu borom kuy sa borom nga ni yaay sunu borom julli naa ko loolu gën a neex ci waaye ñun yéen a bëgg bëgg bëgg teel nga ni tiktok Instagram Twitter laa bi fan la loolu lu ko gën a métti sëriñ si lii bu dee ay sëriñ wala mënoo leen dem nañ jàngi xam-xam ku juddee ko sëriñ te sëriñ si léegi ñoo xaaj ñoo xam ne ñoo nekk sëriñ dëggantaan day hmm. parce que nit ñi naxaatee ëpp hmm. dañuy dañuy wut seen i garde corps soixante garde i bëkk néeg dina fay journée junni dëkk bu métti ko fay journée junni bëkk néeg ñu def la bëkk kër <laughs> ndax sonn mbay mbay yow mi yow mi suñu borom may na la sa tiktok am na doole te xale nga yaa nekk ci yoon te nag sérieusement bu dëgg neexee yàlla. Mhm. yow laa gis sa audience ci tukkoor bu amul oto ci tukkoor bu amul lenn ci àddina parce que li ngay def dañ see ànd sa feer ak xol. mën mhm. nañoo jote mën nañoo xeex mën nañoo def lépp mais xam naa ne li ngay def nii. Mhm. booy ñëw kenn du la jox corruption. kenn du la jox paas da koy def ak amour ak liggéey. li may ñaan balaa déwén ñaan da nga toog nii ni ma toggee sa oto. yàlla nga am sa oto. amiin nit nga yeb nit ñi nit ñi liggéey. léegi nag laa lay conseillé jàppale sa yaay fongal sa yaay xamal sa yaay mooy kat yaay rek nit ñi la yaay rawatee. man su ma waroon jox Serigne cent mille franc jox sama yaay cent mille franc mu jënd ci ginaar ñu nekk ndox Serigne booy jox ginaar da ciy jox yaayam xanaa loolu moo leen dimbali seen yaay yi ñuy jox moo leen dimbali ndax ku ni am na yaayam man sama.